la faillite de l'écosystème Benno Bokk Yaakaar a démarré durant les locales de 2022 parce que en 2019 Benno Bokk Yaakaar euh, durant les élections présidentielles a réélu au premier tour le président Macky Sall avec je pense 57 58 pour cent similaire aujourd'hui au taux du président euh, Bassirou Diomaye Faye à la seule différence que Bassirou Diomaye Faye euh, vient de l'opposition et a été élu au premier tour. Euh, l'appareil d'État ouais mais avoir l'appareil ou ne pas avoir l'appareil n'est pas déterminant dans une élection non je vais te dire ce qui est déterminant dans une élection au Sénégal c'est la vitalité des institutions au Sénégal kenn mënatu la trafiquer ay résultats Macky Sall bi muy remplir en 2019 les Sénégalais ont plébiscité son euh, son son son programme c'est comme ça il ya plus de léegi amul amul euh, amul ay subterfuge yoo xamante ni au Sénégal nit war na ko mën a yore ba ba ba euh, ba yàqar kanamu Sénégal ci ay élections mënul nekk. le fait que jeunes yu bëri di bindu seen carte d'identité ñu bindu ci ne peut pas voter. oui le fait que ñu bëri di wut seen carte d'identité pour voter pendant des mois xamatuñu fan lañu leen ko sànni le fait que ñu bëri war a voter le jour J fekk ñu seen tour mais loolu ay failles la yoo xamante ni mën na avantage mën na des désavantager l'opposition. je suis désolé mais li ngay wax ni gisuma benn këyit bu ko mandargaal alors que man seen ne peux pas parler. amul euh, ay jeunes yu am amul ñoo xamante ni seen carte d'identité CEDEAO dañ ci bind ne peut pas voter am na wala amul. ne peut ne peut pas voter si. am na oui oui am na ñu doon wër seen carte d'identité. ne peut pas voter la mention ne peut pas voter. waaw loolu moom dafa la la non non la mention ne peut pas voter est inscrite en général dans les cartes d'identité où euh, la personne n'est pas euh, amul majorité pour voter. j'ai vu j'ai vu am carte d'identité am majorité pour voter. non moi j'ai mais j'ai des enfants qui ont des cartes d'identité et qui ne peuvent pas voter parce que l'âge de la majorité pour voter c'est 18 ans 19 ans. ou bien 17 ans carte d'identité moo defoon 16 ans 17 ans. non mën nga am carte d'identité à 10 ans. ah oui mën nga ko am à 10 ans. mais mën nga bañ a voter à 10 parce que tu n'es pas majeur. ok tu es toujours sous tutelle de tes parents. maintenant aussi pour que ñu mën a wax ne am na ñu doon jëli seen carte d'identité jotuñu ko. wala am na ñoo xam ne jotuñ ci seen carte loolu il faut ñu mën a am ay ay euh, ay évidence maanaam ñu am rapport bu wane loolu mais mënuñu basé wu ci wax ça ça ça je dois le dire donc c'est pour veut dire que on ne peut pas remettre en cause la vitalité des institutions au Sénégal ça c'est un premier élément le deuxième élément j'ai apporté j'ai tenté d'apporter une réponse j'ai dit que l'écosystème de Benno Bokk Yaakaar qui a fait faillite en 2024 a démarré depuis 2022 durant les élections locales et les élections législatives. Je vais m'expliquer. Dans toutes les localités du Sénégal di nga gis élection locale 2022 des partis de la même mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar def trois quatre ba cinq listes. ci local ci local yi. waaw ça par exemple le cas de la Patte d'Oie est assez. illustratif. Nous, nous avions deux ou trois ou quatre listes euh, concurrentes. Et en ce moment, moi, en tant que membre du Parti socialiste et de la mouvance présidentielle, j'avais attiré l'attention des membres de Benno Bokk Yaakaar ou bien de l'autorité pour lui dire que si on n'y prend pas garde, ça, ça va effriter l'écosystème. Parce que xam nga lu on a vécu le même scénario. la chute de Wade a démarré en 2009. durant les, les locales. et puis xam nga lu tax parce que su fekkee comprendre nga naka la écosystème di fonctionner écosystème c'est un ensemble ensemble bi ci la ay maire nekk ci la ay député nekk ci la ay directeurs généraux nekk ci la ay ministre nekk ainsi de suite su fekkee ensemble bi dafa commencé effrité wu par exemple euh, tu vois tu prends tu viens dans les locales euh, nombre de Euh, maire yi ñu daan am wàññeeku su fekkee dafa am ay localité yoo xamante ni euh, maire ya fa nekkoon nekk ci mouvance présidentielle bi dañu fa dañu daan mais su élection législative yi nekkee ñëwee nañu daan defee ñun élection bi en tant que euh, en tant que euh, en tant que parti exerçant le pouvoir dootul bokk on est à l'opposition loolu day impacté ci législative yi ba pare législative yi même chose ñi nga xamante ni jàpp nañu ni dañu leen saboté woon ci élection euh, locale yi ñoom itamit banque seen loxo bàyyi ñeneen yi muy gën a dégringolé wu bu fekkee amoon na une part bu dañ ci élection législative yi deux parts yi dañ donc la seule carte qui nous restait c'était les élections c'était l'élection présidentielle mais élection présidentielle bi jël ñu jël candidat investir ko bi ñuy investir candidat boobu le président Macky ne moom mooy nekk directeur de campagne boo leen seetloo campagne électorale bi il faut se dire les choses jusqu'à présent nous on n'avait pas de directeur de campagne affiché parce que le président avait promis d'être notre directeur de campagne ce qu'il n'a pas assumé parce que en une euh, gisuñu benn yoon boo xamante ni jénn na wax ne sama candidat lay gunge wala damay euh, défendre sama candidat ça c'est un premier élément le deuxième élément mooy on a fait une campagne en douze jours. moom yéen ak seen morom yéen a ci am. waaw dama lay wax rek damay wax en douze jours yi ñu ko def. course moom yéen a départ andoo ci même ligne bi. waaw d'accord non noo non déglu ma noo da xam nga man damay indi ay argument yoo xamante ne ñun ci suñu évaluation la. mais boobu noonu mënuñu ko boole parce que ñëpp a départ. non yow yaa ma yow yaa d' accord. mais ligne bi non yow yaa d' accord ni non a a ñëpp. non xam nga xam nga yow yaa d' accord non non non xam nga man. mais doyen. te pourtant ñeneen ñi defal naa xam nga ñun dañoo comme dañoo am 12 jours de campagne. 12 jours ñun kese ñoo am ci campagne électorale bi candidat Euh, boo xam ne euh, d'abord pendant que mi ngi def campagne wala mi ngi def pré-campagne am dans la même mouvance dans un parti de la mouvance l'APR ñu gis ay sons discordants moom mu ngi dem dee defi campagne am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi développé beneen slogan bu tudd par exemple Macky au c'est à dire que il faut dire les choses comme telles. yooyu yëpp dafa nekkoon ay situation handicapante ba pare gis nañu ne gis nañ fi gis nañ fi gis nañ fi suñu candidat gis nañ fi suñu candidat dem Tivaouane euh, ñu woo ko d'urgence pour mu ñëw assister benn réunion au palais ou bien xaw ma au CEP euh, pour ñu abilité ko pour ñu jox ko di ainsi de suite donc yooyu yëpp ay situation handicapante la